alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina muhammad mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla ca na mu gën a ware julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ca na mu gën a selle ginnaaw loolu ñu bëgg a jiima leeral li ñu bëgg a leeral bëgga a jiima leeral nag amaan na mu nekk ak fàttali ci ñenn ñi amaan na mu nekk lu bees waa ala kulli xaal lu ci mën a doon yiw lay doon yàlla nu yàlla defal ñu yiw noddu di jaamu yàlla gu màgg muy jaamu yàlla gu màgg goo xam ne jullit bu nekk war na koo xàmmee jullit bu nekk war na koo xàmmee moo tax nu bëgg di ko jiima leeral di ko jàngale euh, buñ la laajee lan mooy noddu waxoon nañ leen ko mooy xamle jotug waxtu wa loolu leeraloon nañ ko buñ la laajee lan mooy kañ la noddu xew buñ la laajee kañ la noddu xew noddu mi ngi xew ci at mu njëkk ma ginnaaw gàddaay gi xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màkka la nekkoon waaye ci ndigalal suñu boroom mu jóge màkka dem madinatul munawwar ba mu fa demee nag at mu njëkk moomee ca la nodd gi ñu xam xewe ci ay baat yu ñu ko jagleel su ko defee baat yooyu njàng maa ngi suñu kanam danañ ci danañ ko jiima leeral ci ay melokaanam kon buñ la laajee kañ la nodd xew na tontu ne nodd gii nu xam mu ngi xewe ca at mu njëkk ma ginnaaw gàddaay gi euh, jullit ñi dañ daan am jafe-jafe ci am pexe moo xam ne dina mun am pexe mun mën a def ngir jullit ñi mën a booloo di julli jullit mbooloo te xam ngeen ne jullit mbooloo day tax a am teddange akum ram comme ni ko Seyxul Xadim waxe wa awqiu salaata fil jamaa niltum karamatan maa shafaa tàbbi leen Sëñ Tuubaa tàbbi leen ci jullit mbooloo mu mel ni dañ ko ne lu tax mu ne ndax dana tax am teddange akum ram jullit ñi ne dañ am jafe dañ daan am jafe-jafe ci man pexe lañ mën a def moo xam ne dana man di dajale ñëpp ñu bokk di julli ndax léeg-léeg dañ daan julli am ku ñëw fekk ñu julli ba noppi am ñoo xam ne dañ duñ fekk sax kabarub armal ba su ko defee nag kenn ku nekk nag di xalaat man pexe lañ war a mun a def waaw julli gi daal moom nan lañ koy yëglee su ko defee kenn ku nekk di indi Euh, façon bi nga xam ne nii moom lañ ko war a yëgle te comme comme amoon na ca jamono yooyee ca jamono yooyee ay ay ay ay jumtuwaay yoo xam ne dañ ko daan utilise ngir di ko euh, ngir ngir di yëgle euh, lu mel ni cloche am ñu propose yonent bi sallallahu alayhi ne ko nanu wut cloche nga xam ne bu waxtu julli jotee ñu fëgg ko ba mu xumb ku ko defee ñëpp xam ne julli jot na waaye yonte bi loolu yéemu ko waaw mu ne leen loolu nasaraan yi ñooy def loolu ndax euh, jumtuwaay boobu noonu nasaraan yi ñoo ko daan ñoo ko daan euh, jëfandikoo ci di ci ci ci di yëgle nga xam ne ñoom bu ñuy def seen julli yooyu moom la ñuy yëngal moom lañuy yëgle muy cloche ñu di ko wax jóolal yi nga xam ne dañ koy fëgg ak weñ la goo xam ne dañ koy fëgg mu xumb am ñu ko ne léegi nañu def raaya raaya mooy drapeau mooy bu waxtu julli jotee ñu yëkkati drapeau ca kaw ba ko seen xam ne julli jot na waaye yonte bi rafetlu ko am ñu ko proposé ne ko nañ wut am njiin a duff njiin nag boo ko déggee am ndënd mu mag lay doon comme yi tabala yooyu nga xam ne buñ ko fëggee nit mën naa toll fu sori di ko di ko dégg waaye yonte bi rafetlu wu ko am ñeneen saxaaba ko proposé an mooy flambeau mooy taal sawara maanaam bu julli jotee ñu taal sawara ba ku ko séen comme ni ko majusi di defee ku ko séen xam ne julli jot na waaye bi moom euh, rafetlu ko am ñeneen sax ñu ko proposé al buuk buuk buuk mooy xarnul yahud mooy béjjënu Euh, yahud yi loolu yahud yi ñoo yar instrument boobu mi ngi ci mi ngi ci euh, yahud yi nga xam ne bon buñ ko buñ ko ëffee dafay xumb waaye yooyu yëpp nag yonent bi moom euh, rafetluwul loolu ndax da daan wax naan xaalifun xaaliful yahuda wa nasaara da ngeen di di di contrer yahudi ak nasaraan yi ci seeni mbir moo tax boo seetloo islaam amut lenn lislaam lu am lislaam amut lennam luy nuru lu lu mu nuroo léegi nasaraan yi wala wala yahudi waaw su ko defee yooyu yëpp mooy euh, jumtuwaay yi nga xam ne nii proposé woon nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa waaye moom rafetlu ko bi loolu amee mu am benn saxaaba bu ñuy wax Abdullahi ibnu Zayd ibnu Abdu Rabb euh, moom moo tëdd euh, am lu ko feeñu waaw ci kàttanu suñu borom. daal koy sa baat yi baatu nodd yi nodd yi comme ni ñu ko xamee allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala alsalaa hmm, akbar allahu akbar la ilaha comme baat yooyu bi ko defee ba bët mu ñëw nettali ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi rafetlu kon daal di koy ne ko allimuhu bilal fa innahu anda ko sawtan yonent bi digal ko ko nag moom abdullahi moomu ne ko jàngal ko bilaal ndax moom moo la gën a kawe baat su ko defee eh, ndax jamono yooyu bilal eh, ku kawewoon baat la te neex maanaam baatam kawe woon na te xumb eh, su ko defee noonu la baat yi rotee ci diine islaam nga xam ne nit léegi noonu la ñuy wootee julli